mooy topp dama koy jox dafa ne dafa joxe information ni que rapport bu ñu doon nëbb ma nga ne sama table point fan la yem mu daal di jàll ci leneen est-ce que xóotal na déedéet bu xóotalee dans na ko déedéet koromak du yow yaa war a wax loolu mm. mais xóotalul dafa joxe information ni que rapport bi ma nga ne sama table tege ba pare yem ci daa di dem ci beneen débat mais Koro Mac Faye comme <laughs> maay plagier donc Diomaye nu mu koy wooyee moom moo ñu jox tur boobu ni ji président Diomaye noonu la koy wooyee Koromak nana Koromak waxul directement ni lu nekk ci biir kii bi lii ak lii ak lii jox na ko tur bu neex na <laughs> waaw <laughs> jox na ko tur tur ku mag borom eh. Dakar la Koromak mm, waaw lébu la lébu la xakkat mm, ñoom ñoom mm. moom Dakar maintenant pour wax la ni que xóotalul ci rapport Prodac bi dafa yégué sénégalais information ni que rassurez-vous. Ah, daf ñoo cofal. oui daf daf ñoo cofal dafa né sénégalais rassurez-vous en quelque sorte ni rapport bi ma doon wax fi ba mu jaral leen ñu ma ci yoon yobuma procès ba ñu daan ma rapport ba ngi né ñu tek sama table c'est ces mêmes personnes là ñoko andi rapport bi <laughs> pour local. kan la. Hmm. oui ñu bon rapport bi. c'est les mêmes personnes là ñoo ko andi rapport bi tegee ko ci taabalam ne ko dañuy juum baal ñu. jot nañ fa <laughs> sëñ bi ñun ay journaliste la ñu. sëñ ko ni ñoo ko ñu ne doo xam lépp wax lépp ma ne ñu ne boon rapport bi ñoom ñoo andi Sonko rapport bi teg teg ko ci taabalam ne ko rapport baa ngi nii sans pourtant mu sonn ci ay xam xam nga ñoom jomaay. dafa xaw ma. Hmm. xaw ma fu ma nekk xam nga ñoom Sonko ak Diomaye Mame Mbaye Niang gis ngeen ko dama lay wax dama lay wax lu ñuy waxul sénégalais sénégalais ku ñu gisal Mame dama lay wax lu ñuy waxul sénégal gis nga Sonko ak Diomaye hmm. sonn ñu ci benn dossier sonn ñu gars yi ñooy andi lépp jox leen <laughs> ñu doon nëbbu dossier yëpp ñoom dañu toog fu ñu toog rek gaa yi di leen andi benn benn di leen inondé ay dossier ñu ne leen dossier ñen doon wax ci oppo jamono opposition dossier yëpp yaa ngi nota mana la ne son ñoom ci dara dara dara dara fu yowuñu fen fan yi ñoo leen di andi dossier na leen dossier yaa ngi nii tellement facile c' tellement facile donc ku kar ni que yow buñ la joxee état da ngay mbuboo état di door askan wi di def ay njuuñ jaaj nga fàtte ni que c' est pas éternel da ngay wàcc bu yeboo def defal lu la ne c' kom comme alors nous avons projet avec ces multiples promesses Je sais exactement ce que justement si euh, Traki, Traki, dès Macky commencé 2012 nous avons que euh, le euh, l'ex-président comment le comprendre. comment. Macky en 2012. Mm-hmm. déclenche exactement la crise, la cour de répression de l'enregistrement illicite. Mm-hmm. allons dans sens euh, après tu leen bàyyee par la par par la suite exactement loolu ne nekkoon ay audits yi nga xam ni itam déclenché woon na alors te ñi jàpp ni euh, Diomaye mi ming si tànk yooyu non jëmale si ki n'a xam ne que Macky Sall. Macky Sall ak Diomaye bokkuñu Macky Sall bu mu ñëwee il était prêt pour jàpp ñu nekkoon ci Ablaye Wade wala sant def leen chantage soit ñu ñëw ci moom wala mu tëj len ci kaso bi. Mm. mais Diomaye deful loolu. Mm. Diomaye ñewul né sénégalais yi créé pour ñun euh, OFNAC OFNAC pour ñom jo waxul lolu Macky Sall dafa ça automatiquement wax lolu ay ay ay mbokam créé pour ñom of pour ñun mais vous, moy da nga vous, wu physiquement pour vous, ay nit pour dag ay je mais dafa lolu bu mu togué ça fait de cela deux mois mais da nga gis nit ñu ku ñu ci illicite est-ce que gis nga ko est-ce que gis nga ko. est-ce que gis nga fii ku ñu yóbbu waa Ngom ci enrichissement illicite gisuñu ko. Hmm. bu mu ñëwee dafa ne dafay réformer justice bi ba pare pour que ne serait-ce que ñi ñi bañ a wax comme Macky Sall ni que non bu mu ñëwee dafa tànn ay maysiraam pour topp ay nit moo tax mu neen déedéet dañuy organiser ay assises ñun sénégalais yëpp daal di àndandoo ci assises yooyu def ay réformes ak moderni moderniser suñu justice bu ñu paree ba ñun ñëpp ñu d'accord. léegi ñu soga yobu yóbbu ce dossier là ci kanam ces magistrats là ñom ñoy xol xana kay doo ma ne Macky Sall lolu la doon def en 2012 donc pourquoi vouloir dire aussi aujourd'hui que Diomaye mu ngi ci tank Macky Sall c'est pas la même chose. Mm. Diomaye bu defé comme Macky Sall Diomaye bu defone comme Macky Sall ñun ñi dinañ ko wax ñun ñi dinañ ko wax dinañ ne Diomaye attention yow Macky Sall lu mu defoon fii CREI ak OFNAC yow yaa ngi defaat la même chose mais Diomaye deful lolu Diomaye ba mu toogee ba léegi dégg nga fii tour CREI yi hmm. est-ce que dégg nga ko hmm. non damay posé d'ailleurs sa CREI yi boobu sa bu fekkee am na <laughs> amul Macky ba muy dem def na lu muy def ba tas affaire yi <laughs> caaxan oh, Macky ba muy dem lan la def ci kii fondation jabaro hmm. pourtant le le cette fondation là mais da ko pourquoi mu dissoudre ko

dañuy top Mariam Faisal Sall dañ koy top dañ koy top ci kanam yoon. donc euh, elle est attaquable la ma la première la première dame la première dame. loi constitution waxul ni que dafa wara am fondation waxuko ko. Hmm. te ñuy tibbee ci les caisses de l'État diko conduire jox ci fondation. le social rek franchement. dedet il y a un ministère de l'action sociale. mais bon il y a des fonds alloués pour des des des choses imprévues les fonds politiques le ñuy les fonds politiques Nous bëri ay les fonds politiques même si moi je ne suis pas d'accord pour les fonds politiques mais les fonds politiques servent à quoi pour ces actions sociales là mais comment on peut dire que il y a des caisses des fonds politiques pour les actions sociales voilà ministre un ministre de de de, l'action sociale ñu dans ce euh, ci côté jabar président dafa am fondation à goût de milliards. Macky Sall moo yay si comment dire dissoudre fondation bi parce que bëggul ñu top ko moi, toppaale jabarom les bu ma lu mu mot def en fait te le pomme perdu. le si les autorités aujourd'hui décident de faire de faire des audits parce que Ousmane Sonko nee oh, non non non non non non dama ne s'il décide. non que commission a été dissous enfin. dama ne même waaye yow sëñ bi xanaa yoo kon dam ngay loi d'amnistie bi ken mënu ko daaneel c'est faux. non non fële donner votre loi. dama assemblée assemblée moo xamante le dama Puis, on parle d'une association qui a été dissoute avant. dama association pour dissoudre mën nañu def audit pour xam ci jamono ba balaa ñu dissoudre ko lan la mais il faut arrêter c'est des personnes c'est des personnes Faut lay waxee. Hmm. donc moo tax ma je la loolu jaru ko beneen débat bi ay débat kii régime na Sonko ak nañu buñu ñun ak Ablad ak c'est simple. c'est clair alors ñu jall ci exactement ponk wo xamni ne nous ni ñu bari ñu koy xaar arfan mooy bourgogne et d'années Bougane nag bataille euh, mi ngi def euh, Sénégalais ni mi ngi def euh, s'affirme au plus grand jour exactement ay euh, révélation allant euh, dans le sens surtout aussi sur la sortie d'Ousmane Sonko c'est trop euh, trop c'est trop Ousmane Sonko mi ngi exagérer quand même enfin comment analyser cette sortie de Bougane guédani ouais mais Bogan c'est un homme politique c'est un homme politique bon pareil c'est un opposant c'est un opposant <laughs> tu dafa japp di que mon xamam Bougane li ngeen xamul ci Bougane Bougane dafa japp que euh, l'opportunité lui est offerte mon pour mon comme son lu mu meloon ci opposition est-ce que comprendre ah, c'est possible. voilà ça dit que le le le gomme li que Sonko lu mu ci jamono opposition bi mooy di tirer sur le régime du wax mon membre pour euh, actuellement mon module pour place bi. Seigne bi xana xew donc Bougane dafa japp ni mon mo prêter le flambeau mm. les Momo jël place Sonko ci opposition bi mm. donc Sénégalais mom le la déglu c'est normal hein? il est opposant aux audis Bougane warna warna bay pour que mom voilà Sénégalais commencé aussi di ko déglu di ko bàyyi xel moi il faut nga attaquer Sonko directement. mais son la politique aussi euh, le fait que mu ait position ci élection son avenir en politique. Euh, en tant qu'analyste politique C'est euh, si lan euh, si lan parce que des naa dégg waa de di ko tooñ que ni cent ans doo nekk président et tant d'autres et tant d'autres mais quand même son avenir soit politique est-ce que Bougane son avenir se précise parce que il y ko encore dox bi passé maa loon déglu nga le fait que des Fall génnul am na lu mu Sam a sàmm am protéger son image exactement alors qu'on est Bougane nag tey ne principal ennemi bu son Sonko te ñoom ñu ngi donc il est c'est normal que ni la population bi ñoom fal ñoom Sonko dellu tamit di opposé aussi jamais parce que dellu di opposé aussi euh, Bougane parce que dans les Bougane vous bëgg opposé wu ki et qui sont entrés et qui sont euh, installés fraîchement concrètement Arfan. la la bëgg a ñëw xam nga dama c'est a raté le tir politiquement parce que munul politique. Hmm. oui Bougane groupe de presse la Yoron. diwa yor Khalisam. di. d'abord dafa commencer gëm sa boss gëm sa action sociale di tax